ay maqaam yàllaaw bisimil ilaay ci barkeb say ci fàddilu mi buru yàlla ay maqaam yàllaaw bisimilah salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam kooku sëñ Dame Lo allo allo waaw waaw bi Lo Mbacke. ñu ngi lay ziare bu baax a baax. yàlla na ko nangu. ñu gën laa xam ci alalu Serigne Saliou Mbacke. waaw. ñu am mbégte bu baax a baax Samuel sekk la fii ci rajo bi wax dëgg yàlla ñu doon la jël en direct. waaw bëggoon na wecceelu tey yow yenn lenn ci ay kàddu rek yoo xamante ni wax dëgg yàlla askan wi ñoo ko taataan ñoo ko soxla ci yow. Mm-hmm. bokk na ci tam kilifa gu mag wax dëgg yàlla daf ñoo dafa am kàddu yu ñu yónnee yónnee ñu sa vidéo. Euh, wax tax de ba tax ba tax na rek fi mu ne daanaka ñu bëggoon cee jokko ak yow xool ba xam fi ne li askan wi di wax ak euh, euh, li nga xamante ni mi ngi dëppook yow li ngay jëflante ak ñoom. Mm-hmm. ñu bëggoon xam ndax lenn li baatin la ndax wala lenn li xam-xam la ndax wala lenn li tamit fi mu daanaka ne la rek. Mm-hmm. bokk na ci tey di àjjuma 18 mars ñu ngi nii ci en direct lañ lay woowee nii ndax bëggoon nañoo jokkoo ak yow ci tele bi sax mu gën a yaatu waaye fi mu ne gannaaw yàlla sama borom dogalu ko taxat na. Mhm. moo tax ñu ne nañ la woo direct rek àdduna askan wi yëpp daal di koy bokk déggandoo. waaw gannaaw bi ñu la nuyoo ba pare jaar la bu baax a baax a baax itam dañoo gis euh, li nga xam ne moo weesu muy coupe d'Afrique bi nga xam ne senegal jël na ko. Mhm. ñu gis nga am ay kàddu yoo xam ne danga ko ci defoon. waaw waxoon ci ay résultat waxoon ci coupe bi ni mu war a dikkee ci réew mi ba fi mu toll. Mhm. loolu nu mu demee woon sëñ Dame gannaaw bi ñu la nuyoo ba noppi. waaw maa di jaajëfal mbooleem ñi déglu ñëpp rajo bi. macha allah rabbi. Euh, ñu xaw a baar tuuti rek ndax ajuma ji maa ngi koy waaj. dëgg la kay. waaw loolu ni mu demee woon euh, comme ni nga ko waxee rek bu dee seetaan ngeen ko. Mhm. du dara du xam-xam du dara yàlla ñu sàng mbalaanum mhm. sutura ñu génnoon waxoon ci le trois yi mhm. waxoon leen score yi Sénégal di dóor doon ci réew mi leen dëkk doon doomi réew mi mhm. dëkk ci réew mi am nañ droit ñaan ci réew mi jàmm dëgg am nañ droit tamit ñaanal suñuy taalibe wala ñaanal suñuy doom suñu njaboot ñu ànd ak mbégte ndax réew mi ginnaaw fi leen dëkk bu doon tàpp suñu njaboot def si baa suñu alal baa suñu waa kër kon nañ leen ñaanal jàmm yàlla ñu sàng mbalaanum sutura rek ñu génnoon waxoon ci score yi Sénégal di dóor rek jàppoon ci ba suñu borom sàmm ni ma laa sutura noonu la def. alhamdulilah mu mel ni tam am na kilifa gu mag ci réew mi koo xam ne du ñu bëgg tudd turam waaye fii mu ne daanaka buñ junjee nit ñi dinañ xam bëri na lum ñu wax bëri na lum ñu wax ci yow waaye yónnee nañu tam ay vidéo yoo xamante ne xam naa nit ñi du ñàkk dinañ ko seetaan ci internet bi incha allahu rabbi euh, ñi gannaaw bi nga xam ne génn nañ ko ci Coupe d'Afrique bi sëñ daam ñi ngi dëgmal euh, coupe du monde bi qualification Sénégal Égypte ak yu kenn xamul fi mu toll nii Sénégal ak war a jokkontoo loolu tam ban gis-gis nga ci am fi mu te dégg nañ tam ci benn vidéo boo wax ni Sénégal dina daje waat ak France loolu tam fi mu ne ni mu demee. waaw loolu def naa ko. Mhm. na ci internet bi ñu woo. dama ko gis kay day <laughs> di Sénégal day qualifié incha allah bu soobee yàlla ci mondial bi. Mhm. ba pare danañ am poule boo xam ne bu xaw a tàng lay doon. Mhm. Euh, Sénégal France ni ma la ko waxee nan ko waaj incha allah bi soobee yàlla dana ñëw. te kat na suñu borom te danañ qualifié incha rabbi. incha rabbi bu ànd ak dogalu suñu borom bi. Mm-hmm. waaw bu gënee jege bu soobee yàlla. Mm-hmm. Euh, wax naa leen ko ba taay danaa ci génn wax score bi. Mm-hmm. buñ ci amee ndigal buñ ci amul ndigal danañ bàyyi la waaye li ci ëpp solo daal ñu di leen ko wax. àdduna di ko déglu mooy incha allah rabbi bu neexee yàlla ko dogalam. Sénégal moom dana qualifié ci qualifié gu leer nañu ko amul benn takk takk suuf. Euh, sëñ daam est ce que tey ji yow bokkuloo fi mu toll nii ndax euh, defe naa ni fi mu ne wax dëgg yàlla citoyen bu ne war ngaa jël ay matuwaay ci li nga xamante ni wax dëgg yàlla mooy sa digg sa réew sa diggante saw askan waaye tey ji est tey ji sëñ daam fi ne bokkuloo ci ñi nga xamee fi ne fédération bi dañ leen a jël nëbb leen ci ruq bi fi ne ngir ñu ngir ñuy liggéeyal équipe nationale waaw mais am na loo xam ne xam nga kenn du ko wax ci rajo wallaay ndeysaan <laughs> ndax umpalul euh, ci li fi xam bari na. Mhm. te ñu ngi fi jaxasoo bari na. Mhm. Euh, ku nekk réew mi am njariñ rek baa ñu xam la. Mhm. suñ joxasatoo yow ñu ngi jaxasoo ku la jege umpewuñ fi. loolu ko amoon du jar ñuy toog ci télé wala rajo di ko leeral. ndax du ñu amal sens xamaa na loolu suñu diggante ak ñoom la. même bu dul loolu tamit ci réew mi leen dëkk am nañ droit ñaan ci réew mi. ci Sénégal ñaan fi jàmm ñu kon ñëpp sañeen ñaan daal. ak kilifa dina yëpp noonu la ñu amee sañ-sañu ñaan bi waaye ci ay rajo yooyu maay ñaanal wala jiw xam na ma. Mm-hmm. Mm, du ma doxee noonu. dëgg la macha allah mu doon lu am solo waaye sëñ Dame bokk na ci tamit tey ji dañoo gis ni sëriñ su bëri ñameetu ñoo wax ci wàllu ay làmb ñameetu ñoo wax ci wàllu football ñameetu ñoo wax ci wàllu li niru sport à grosso modo mais sëñ Dame dañu gis ni moom fi mu toll yow daf lay jaral leen li mu jaral la ko ba nga génn def ci ay vidéo laata match yee jot wala laata làmb yee jot loolu tam sëñ Dame bëggoon naa dëgg-dëgg nga wax ñu lan la baatin la bu la sëriñ bi sol wala suñu borom wala naka la demee daal dëgg-dëgg fi mu toll nii sëñ Dame waaw xam nga xam-xam moom mi ngi tàmbalee ci xam li ngay def. Mm-hmm. nekkul ne da nga bari barile boo ko barilee ba pare da xam li ngay def. Mm-hmm. xam nga ñun bu ñu wax li ñuy wax euh, làmmatuun ko. Mm-hmm. àdduna ñuy déglu àdduna ñuy seetaan. umpewuñ ci réew mi defaguñ benn émission. ci fenn ba woote ne kaay li ñu génne bagages yi ni ñaani. wala nan war ne ñooy ñaanal jiw déedéet. doxewul noonu. làmm ji ay làmm wax naa leen sax na leen du ma ci wax. ndax euh, am naa ci ay taalibe am naa ñu ciy te tey dañ ci am connaissance ak ku ne mhm. du yoon ñuy génn di wax di way daan diw daan mhm. sëriñ su ci génn di wax toujours jum mhm. mën la cee yomb dëgg la xam nga am na ñoo xam ne danañ wax dara pour bëgg bës waaye danañ wax dara nag am ci bës danañ wax dara ngir jaar ca nag ñett ñaar ñi leen gëmoon sax ñu ñàkku ko loolu loo ko waral mooy ñàkk xam li ngay wax ay làmb ak ay yooyu yëpp ay dernière minute la mais ñun euh, soo gisee du ma génn ci télé wala may wax fenn rajo. Mhm. Euh, soo gisee ma génn wax presque ci coupe d'Afrique bi la. Mhm. ci laa tàmbalee génn di wax te loolu Sénégal la. Mhm. te loolu dañ ciy am ndigal am fu ko teg ba moo tax ñu di ko wax. moo tax it bu jubsee bu mu ci amee ndigal comme noonu wax ci rek. Mm-hmm. moo waral vidéo yooyu ñu def ñu def ko ci. Mm-hmm. waaye bu dee ay làmm wala politique wala mbiri jàmm. Mm-hmm. Euh, man du ma ci du ma ci wax yooyu du ma ci faral di àgg. yooyu sëriñ bu ko ci def tamit bu ma amee lu ma lay digal. wala ma lay conseil wala nga may déglu dama naan la du ko jar. parce que da ko ci wax am ñett ñu la bëgg da nga ko ci wax am juróom ñu la bañ. dëgg la ndax nit ki daa may soppee mbooloo du ko topp ñu mu jaroo ko dem fu ne. kooka la li nga am ginnaaw suba yàllaa ko yàlla mi ngi mu def ci doomu aadama Mhm. laamu moom mooy dernière minute nga nekk di ci wax ndax mhm. laamu ju mën di doon rek dernière minute la dëgg la mën nga def lépp ba jàpp ne yaay daanu ba ne suba la laamu ji nga ñàkk ko mhm. te ginnaaw da ngay seet yaa ngay gis victoire victoire am na lu koy fanq ndam am na lu koy may yooyu moom ñi ciy wax bu mu bu ma déggoonoon ba déggal ma du jar ñu ci àddu daal waaw ndax ndamaa ngi ci waaye tamit euh, gàcce mën na ci ndeysaan macha allah sëñ Dame duñ la téye ci ligne bi lu yàgg ndax tey ajjuma la yaa ngi ci wàccaayu jumaa ji ndax yaa ngi ni nii dëgmal jëm yoonu jumaa ja waaye xam naa ni euh, ki ñu boole moo tax fi mu ne wax dëgg yàlla nga dus ñoo gantal waaye sëñ Dame ñu gis ni tamit ba tey kilifa yu bëree bëri ci réew mi dañoo wax ni fi ne daanaka samp gi ñu samp tey ji yow ci sa loxo la la ko sama borom jaarale. maanaam kilifa. yu bëri ci réew mi. Ah. ndombal tànk yi nga xam ne ñoom yor nañ ko tey jii la leen samp tey ji bokk na ci yow mi yow sa loxo la ko sama boroom jaarale waaw xam nga loolu mooy li ma la wax léegi nee naa la ñun umpewuñ ci réew mi. Mhm. Euh, wax dëgg yàlla te dañ fi amul njaboot suñuy taalibe ne fi. Mhm. du am sens rek ñu naan ñooy defal diw ñooy defal nangam damay faral di wax na ñaan. Mhm. métier am noble la. pas doola du ko def. déedéet. dina président yow yaa ko ëpp sax salaire looy fayu mhm. parce que tey ki nga xam ne da nga koo defal mu gis mhm. laajoon nga ko million ëllëg mën a laa jox lu ëpp million mhm. te damay faral di wax ne seet gu wér képp boo noobul nga war a doon waru ñàkk xaalis dëgg la de nit ñi am nan xaalis am nan yitte am nan soxla waaye gisuñu ku leen doy léegi nag yow boo mënee li def doom jotu sax ci TikTok wala internet wala site jour woob site Mhm. man lu ma nara a woy bi fay ko wala télé ngir ñu dalal ma mhm. wala wax la ma ana ca émission ba ñu waxtaana ca mhm. balaa caaga ma toog koo ñam joxe ko taalibi sëñ Saliou ñu lekk ko moomu koy gënal ndeysaan loolu nag moo tax maanaam yu bari yu mel noonu duñ ci faral di wax ndax tey am na ñoo xam ne ñu ci waxee rek day mel ni ñun dañuy kañu wala dara mais eh, tey ni la yàlla di sànni sutura yow sëriñum ñaankat bi mhm. góor-góor ba ko jaxasoog yow ñawul naw la fexeel mhm. ba koo defal mu gis sawara ñëw buy ñëw indi keneen boo mënee ñaan rek famille bi a bokk famille bu rëy la mhm. bu ci nit woppee ba nga koy faj ba mu lay indil keneen ba ngay ñaana ci famille bi jot ñaan du mbiru caaxaan lu loo xam ne lu yomb la léegi nag dafa bëri sax dañ koy gis façon bu ne lu ne la gars yi di wane lu dana laa xeeb wala ñun ñu naw suñ xam-xam mais am na yoo xam ne du ko jar mhm. boo mënee li ngay def rek fajuk aajo boo ko mënee da ngay toog mu lay dox ñu lay fekk si mhm. kon loolu noonu wala nit ñi di wax wala yéen ngeen koy xalaat wala ñi ñu xam wala kilifa gu leen mën di woo di wax ci yooyu mhm. mooy ñun ëmpaluñ ci réew mi ñi ngi sant yàlla nag mënuñu dara mais yàlla mi ngi sàng mbalaanam sutura ci ñi ñuy jëflanteel joxosoon cocogooku nit ba mu mer baa mu jirti nga loolu rek moo day sant yàlla ndax sëriñ daal métier noble la mhm. a a ëpp personnalité amul ku ñu mhm. war a gën a bëgg suñu bopp amul mhm. ndax bu dee sëriñ nga muy dëgg ci yow ak dem ba toll foo xam ne boo leen nit na borom mooy comportement sëriñ ak ci di yëngu rek nga sellal ko ndax sell gi rek mooy moom mooy dëgg gi te dëgg gi ëllëg moo am sax te mooy mucc wallaay ndeysaan macha allah mu doon lu am solo te li ngay wax tamit li koy firnde barki démb rek gis nañ wax dëgg yàlla fa fee am taalibe yoo xamante ni wax dëgg yàlla da nga leen a ñaanaloon ñu gis ñaan nga ba ñëw indi ak daamar gu bees tàq koo xam ne wax dëgg yàlla jox la ko addi Sëriñ Tuubaa loolu kon daana day mel ni firnde la ci li ngay wax nii euh, waa loolu dëgg la am na mhm. ñu jox ñu ko addi Sëriñ Tuubaa ndeysaan ñu def ko te sëñ Tuubaa rek tax. Mhm. Euh, ñaar la sax beneen bi. Mhm. Euh, danaa ko leeral. maa ngi mhm. koy nuyu baax di ko ziar moom Serigne Mamor Ndiaye. ndeysaan mu yëkkati oto jox ñu ko addi addiya. ndax la tax mu def ko mooy. Euh, Royal mi doon football ak Paris. ñun depuis doo nga daara dañoo bëggoon Royal ba léegi. ñun mooy suñu équipe. damay toog ñuy toog ñoom fi ñu koy seetaane. ma jékki-jékki na ko yii xale def di jouer football pour gagner. mu ne ko benn semence da nga dugal trois bi. ndeysaan match bi xaaral ma jàpp ci ndax man Real mooy sama équipe. ndeysaan macha allah te ñu dem ñu dem euh, ñu dem quart de finale. Mhm. dañuy gagné. ndeysaan boobam bii taanan. Mhm. mu yëkkati xaalis bu bari suyee ko pour mhm. gagné. def loolu yàlla dogal hmm. la ñu waxoon moo am ñu ànd ñu jàpp Royal Kalifi ci la defee live directement ci sama TikTok. Hmm. mu wër àdduna bi mu ne dana ma jëndal oto ngir Serigne Saliou. ndeysaan ba wax jooju moo wax oto boobu tamit ñëw na. Hmm. moom ñu ko ci nuyu bu baax. macha allah oto boobu taalibe yi def tamit ñoom it da leen a war. loolu dañ koo def ren ngir Serigne Touba. ndeysaan ñu def ko tamit xoolewuñ suñu jumbu lenn lu dul Serigne Touba moo tax. ndax ñun oto bi ñu tàmbalee am. ay treize ans mhm. lan tàmmulee war oto Sëñ Tuubaa di ñu ci teral cinq cent cinq la njëkk am ci àdduna ñu jox ma ko addi Sëñ Tuubaa ci Thiès mhm. Madina Fall ci benn commanda bu ma ko joxoon mhm. mu seen joonu yàlla tey macha allah kon mu mel ne sëñ moom football bi moom yamul sax ci football bi nga xam ne moo ne ci suñu biir réew mi waaye football bi nga xamante ne daanaka fi mu ne champion ligue bi sax fi mu nekkoon sëñ Dame a ngi def ay mbir fi mu toll ma ne comme ma ne football bi dama defoon ni football bi sax daanaka xanaa Sénégal buy football ak yooyu sax ci ngay defi ñaan waaye ndekete kon fi mu ne ligue bi ligue des champions bi nga xam ne ma ngay am ca bitim réew sax fi mu toll kon sëñ daam dina ci dina eh, dina eh, déet eh, déet man ligue ay ligue des champions ay tubaab duma ci def ñaan dama ne la Royal mooy sama équipe loolu ci bii doo nga daara la dama koo bëgg ndeysaan ligue des champions bi tamit yaakaar naa am na ñu bari ñu may woo ci soo ba léegi ay appel yuy daw. dëgg la wax na ma ko waxee mu demee noonu yaakaar naa Royal mi ngi am Chelsea. Mhm. yaakaar naa noonu laa ko waxee woon te sunu borom suturaal nañu noonu la demee. alhamdulilah yaakaar naa Bayern mi ngi am Villarreal. Mhm. noonu laa ko waxee woon sunu borom suturaal na yaakaar naa noonu la demee. ko mhm. Madrid mi ngi am kooku nga xam ne moo di Manchester City. yaakaar naa noonu la demee. yaakaar naa Benfica su ma juumut. Mhm. yaakaar naa mi ngi faf am Liverpool. ndeysaan. yaakaar naa noonu la demee. su ma juumut te dafa mel ni fi moom fi ne kon yow yaa ngi yaa ngi yaa ngi bagage yi moom da nga cee da nga cee xam lu lu lu lu wér fi mhm. su bëri dañuy juum. la football lu yomb la. Mhm. ñun bi ñu nekk doo nga daara lañ ko gën a mën loolu xam-xamu bedde la. ok. yàlla xam na loolu. ay mhm. football ak dugal bii ak ñu bañ laa dugal. Mhm. loolu ku jaar ci daara te xam dëgg-dëgg te wattu te saytu xam-xam ni nga ko war a saytoo. Mhm. xam ne du xam-xamu sox maanaam kilifa gu mag xam mu bébé la moo gën a yomb. ndeysaan gisoo ñu nekk ñëpp di wax. dugal laa ñu ñàkk laa dugal nga dugal ci bii fexe ba joueur bi dugal ay bii moo gën a yomb lu yomb. kaay ma naanam ndox. loolu moom du xam-xamu dara moom. dëgg la boo jaaree doo nga daara sax xam te mag ñu njëkk ñi. Mm-hmm. xam ne moom secteur yooyu ñoom ñoo ko yoroon. ndeysaan yooyu nag dafa bëri yoo la. moo mm-hmm. tax mm-hmm. ba léegi woon moom ñu ngi fi. wallaay kenn du mag ñi ñu delloo ko ci yàlla nekkul suñu xam-xam wala lu ni ndamoo. koy tiitaroo bëgguñ cee kañ moo ñuy sàng mbalaalum sutura li am ko xam. wallahi yàlla li ci yàlla tamit ni ngi mu def ci doomu aadama la ñëwagul. la waaye nag loolu day fekk nga ñaanaa la ci yàlla sàngal boole ci malaanum sutura mhm. malaanum sutura rek moo jara ñaan te mhm. suñu borom ñu koy sàng yàlla ñu gundikon te di ñu ko sàngal macha allah rabbi xam naa benn wala ñaar yi ñuy jeexal rek ndax waxtu wi xat na lool bokk la tam ci coupe d'Afrique bi bi mu jotee nga nga ni di nga dem ñu la tamit dem nga bitim réew seetaani yi seetaani yi coupe d'Afrique ba bi ngay wàññiku maa ngi ak yi nga xam ne mooy bi ngay dem ak bi ngay ñëw yëpp te incha allah rabbi adduna yëpp teg nañ ci seen bët tamit eh, loolu tam lan la woon fi ne yéene la woon wala bëgg la woon wala sentiroon sa bopp ci ni dem seetaani yow waaw loolu dañ ci amoon ndigal rek. ak saa yoo hmm, mm-hmm. ñu jox ñu ci ndigal ñu dem ca Cameroun seet final la. Mm-hmm. ba mu gën a gis si ñëpp seetaan nañ ko ma dénoncé ko doon ko wax. Mm-hmm. ca demi final ba. mu fekkoon ñu génnoon réew mi après ñu ñëw ñu dem ngir loolu. loolu lépp dañ ci ànd ak nit rek xam nga ay football ak yooyu. sax nekkul loo xam ne. suñu mbir la wala lu mën doon waaye li ëpp ci côté bi ñu ciy nekk rek mooy. Mhm. chaque fois ma koy wax ci réew mi la ñu bokk. dëgg la gis nga loolu bu ma amee bari na samay taalibe yu bari yu ko naqarlu. te mhm. wóoruma di génn sax ci yii. waaye nag leeral naa leen lu bari li tax ñu wëlbatiku di mhm. am ñett ak ci réew mi la ñu te dañoo am ay conseil am ñu ñuy digal mhm. am ñoo xam ne suñu kilifa la am ñu ñuy sant mhm. am ñoo xam ne tamit ñoo yor suñu mbir ni mu doxee macha allah moo tax luñ ci am rek buñ tëb tëb defew ko suñu yëfi bopp mhm. ñooñu dañ ci toog waxtaan ci segg ko ñu waxtaan ci ñun ñu war ci génn wax rek ñu jiitoon ñun ñu wax ci macha allah maa ngi koy loolu waxuma la sax ñaan geeg yooyu waaye bëri na lu ñuy programme balaa yàgg àdduna di ci teg bët ñuy mhm. doomu réew mi di citoyen ci dëkk bi fas yéene koo def ci réew mi ngir doomu Sénégal lépp liggéey ci wallaay te laata appel ci seen rajo bi mhm, incha allah balaa yàgg dara danañ gis vidéo yi mhm. ñu def ko def ko ci réew mi doonte ci doomu réew mi la ñu bari ci Sénégal yi ñu jël leen fa ñu koy liggéey ndeysaan ndax ne pour ñaan la rek dañuy doxal réew mi ak liy doxal suñu mbir ak li xam ne kat liggéey dafa bokk ci jaamu mu mel ni fi ne li nga wax ni li koy firndeel mooy tey ji ku la xam-xam askan wi nga bokk muy wax waa kër sëñ Dame Abdourahmane loo wax dëgg yàlla xam ni kon fi ne wax tedd nga moom fi ne suñu borom bar barkeel na ko ci seen jëm yi macha allah. waa ñun sax. Mhm. dëgg la danañ bokk ci waa kër sëñ Dame Abdourahmane Lo waaye fi ñu bokk dëgg. Mhm. mooy waa Ngaabu. Ngaabu. loolu sax ñu bari na li dañ ci ne waa. Ngaabu waaw dëgg la waaw man sëñ Cheikh Lo Ngaabu. sama maam ndeysaan Euh, maam la ci man mm-hmm. sama maam la. Mm-hmm. waaye ñun suñu lépp nag day Serigne Saliou. ndeysaan ba ndax euh, kooku moom moo ñu defal lépp nag ñun. Mm-hmm. doonte bokk nañ ci waa Ndaam waaye ñun waa Ngaabu lan wëlbati ko bokkaat ci waa Ndaam. ndeysaan wëlbati ko bokkaat ci waa Kër Sëñ Massamba. ah cër yi daje na kon. waaw waaw ñun foofu la ñu féete ci réew mi. ndeysaan daal ñu bokk foo xam ne fu la. ñu bokk ci réew mi doon doomi réew mi. wax kenn xamul leen lu dul jaamu yàlla ak alxuraan ak xam-xam. Mhm. loolu nag ñu koy sant yàlla. macha allah ndax ñun suñu maam ba ci suñu maamaat. Mhm. loolu la ñu xam. kenn mës a dégg kenn rek. Mhm. te lenn lu dul ca la ko war a nekk. moo tax donte mënuñu ko ñuy góorgóorlu di jéem a tege ci yoon woowu. ñun foofu lañ bokk ci ci diine ji. mu mel ni askan wi tam ngi wax ni sëñ daam fi ne daanaka wax dëgg yàlla jot ko moom dafa xaw a jafe lool man leen nag kuy faral di faj yi tey téeméeri doomu <laughs> Eh, waa xam nga dégguma bu baax question bi. Euh, maanaam nit ñi dañuy wax ni leen léeg jot la day jafe. waaw man leen fi ne nag koo xam ne day saafaraal téeméeri tey soxla yi téeméeri doomu aadama. waaw jot ko bu yombee nag fi ne dinañ ko laaj ndax fi ne moom la muy liggéey maam ndax ma ngi koy liggéey ci anam ba mu ko war a liggéey. waaw waaw loolu moom ñu ngi ciy jégalu. Mm-hmm. wallaay naa si yàlla rek a tax ñuy wax fii du ko ko yàlla bind. dëgg la waaye man ñi may woo ñëpp xam ne damaa jafe jot ci man nga tegale trois jours yi ma xaw doo jot waaye loolu lépp du dara maanaam sant yàlla maanaam bu dul ñaan mi mhm. léeg-léeg da ngay nekk sa digganteeg sa borom mhm. li la war ci moom te loolu kenn du ko fàtte nekkul ne waxtu wu na rek ñu ngi ciy tee nit ñi dëgg la suñ toppee nit ñi danañ bàyyi suñ digganteeg suñ borom ndeysaan dëgg la suñ digganteeg suñ borom moo ñu andi ci àdduna macha allah loolu dana waral loolu mhm. moo tax suñu nit bëree bëri ñu ci yeewu. Mm-hmm. parce que moom vocal laa yemale. dëgg la yàlla xam nit mën na ma ko lii envoyé ay fan mm-hmm. sax du ma ko liir. Mm-hmm. parce que du sa digganteeg nit ñi. dëgg la bu fekkee ne nag da ngay toog nit ñi da nga dem ba fàtte sa digganteeg yàlla. loolu de wér na seen soxla ak seen intérêt moo leen tax a jóg ci yow. billaahi bis bu ñu xamoo ne mënoo dara wala li ngay def liirut ci ñoom. diitoo leen dégg kenn du la ci soxla. dëgg la. amaana sax ñu wax ci yow sa ko la de waaye nag naqaree jot lépp du dara lu dul rek. maanaam xëy na lu baax tamit yombul. yombul dëgg la ci waxtu wu ne. Mhm. saa su ci li mu bëgg a jot. Mhm. mu fexe ba jot ci rek moo moo am njariñ daal. macha allah rabbi fi ma jeexalee rek mooy sa digganteeg Serigne Saliou lan nga ñu ci mën a mosal. Euh, waaw loolu moom <laughs> sëñ nekkul lu may wax ci rajo. waaw mosal ñu ci rek sëñ daam ndax xam nga soppee Serigne Saliou dañoo bëri. <laughs> waa dëgg la waaw wax ci rajo maa ngi nuyu mbooloo ñu toog maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp allah nekkul lu may wax ci ci ci ci télé. dëgg la ndax li ko waral mooy koo xam ne ni nga mel moom moo tax. koo hmm. kooku moom. sori nga ci moom. ndeysaan bëgguma di ci wax xajul ci waxtaan. wallaay ndeysaan te damaa ne ci àjjuma da ma xasee dugg ci moom. Mm-hmm. doo tàmbal doo too bàyyi. gën a dugg di dem. <laughs> léegi loolu moom bu soobee yàlla naa leen ko jox dig dajee. incha allah rabi yeneen i jamono yoo xam ne danaa ñëw seen télévision bi. Mm-hmm. toog rek ngir ñu waxtaanee jëmm jooju. incha allah bu soobee suñu borom jot may ma ko incha allah. incha allah kaddu yu mujj kaddu yu ak li ngay soññee askan wi ak yóbbal gi muy daal di doon kon tey jii ci bés bi waaw ci bis bi de li ñu soññee askan wi ci àjjuma ji mooy ñaan ci réew mi jàmm. allahumma amiin yaa rabbal alamin. ñaan Cheikh Mamadou Mountakha mu yàgg sa am ko wér. allahumma amiin yaa rabbal alamin. ñaanal ko suñu Cheikh Mbackeem suñu Saliou ak xalifa Baye Fall yi ñu yàgg sa tànn na ko wér. amiin yaa rabbal alamin. tey ñaan ci réew mi jàmm. Mm-hmm. tey soññu mbokku jullit yi ñu tàppe xol yi. Mm-hmm. yéenante jàmm. Mm-hmm. te xam ne réew mi di Sénégal. bët la tukki du ma sa tàkk. dëgg la bu ma gisee sa ñoo xam waa mi sëriñ bi wax nangam bi mi dana tàkk. dana <laughs> ñàkk xam-xam rek. xamal li ko waral mooy eh, sunu mag ñi baax ngi dañ fee ñaan. Mm-hmm. dooyatu su mag ñu baax ñu tëdd fi mhm. te kenn ku nekk liggéeyal nga yàlla benn bis mhm. bu la yàlla di suturaal kon ñooñu duñ seetaan suñu réew mi di tàkk loolu nañ ci am na nañ ci am na xel mu dal alhamdulilah ñu ñaanal réew mi jàmm ñaanal kilifa ji nañ jàmm mhm. xale yi góorgóorlu ci jàmm yàlla te wekk mag ñi te nangoo liggéey te bàyyi kërti kërti dara lépp loo xam ne ci àdduna la ak ku leen woo ci nen lépp loo xam ne fitna la te ñu soññi a suñu mbokk sëriñ fi xam ne dañ koo sañ na ñoom di leen ko rek ku ko man noobul nga war nga am xaalis wallaay ndeysaan yu bari ci àdduna du ko jar ndeysaan da nga wax ci moo bari benn mhm. grand bubu benn kol <laughs> génn na sëriñ laa daf sëriñ wax ci bari ba na loolu mhm. amaana sax nañ ci bàyyi xel bu baax te dimbali ñu ci mhm. xam ne lii ñu yor valeur la dafa seer macha allah muy ñaan du ay caaxaan surtout nag ñaan ko wax naa ba tey président sax yaa ko gën a seer bu yàlla. walaay ndeysaan bés bu ne nga wax ko kay. président fu mu mën di doon ku ne ci état ku nekkul ci état yow wër. walaay ndeysaan koo ci toogal di daanaka foo xamee sëriñ bu hmm. dara boo mënee dara boo mënoon mucc bañ day neex. six hmm. jours da nga gis fukki nit yu ne la moccal ma bu doon ku nekk hmm. am na député yu mënut a fay ko loolu weer. walaay fukki junni par bés lay yomb. yam ca nga fexe mu dox. toog ci ndeysaan eh, am na yoo xam ne daal boo dee borom tur wala nga am foo bokk mhm. bul sox nangu nit ñi di ko dëgg la baaxul ndax yu bare bari nit ci niñ ci jàpp ne dañuy der ñu fekk da koy yàqal dëgg la loolu yàlla xam na loolu ndax man bëri na ñu ma ci gis ñu may envoyé mhm. am na ñoo xam ne xam am na ñoo xam ne sax mhm. amaana nañ leen xamee woon. ndeysaan waaye daal lan nekk na métier moo xam ne ko gën a bàyyi xel te ko gëdd. incha allah loolu la ñuy def rek di leen sant bu baax di leen gërëm. Mm-hmm. surtout yéen waa rajo bi ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm. ndeysaan di am mbégte ci woote gi ngeen woote nii. Mm-hmm. ñu ngi bu baax a baax. rek incha rabbi jërëjëf sëñ daam ñi ngi am mbégte bu baax a ci wax dëgg yàlla jot gi nga ñu may wax dëgg yàlla ñu mën a jokkoo ak yow ci lii di ñaanal yow itam ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam barkeb sëriñ sa sang ba sa borom taxawu la guddal saw fan te wéral say cër ba mbooleem mi xamante ni naalal nga ko askan rek sa borom defal ci lu kawe sax njot ci daraja yi Cheikhuna Ahmadul Xadim ci barkeb say xi fàddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàlla bisimil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi bur yàlla dolli noo ay maqaam yàllaw bisimil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi bur yàlla dolli noo ay maqaam yàllaw Bienvenue sur Salam Vision